Bonsoir chers téléspectateurs de la scène Box TV et bienvenue dans votre émission Le Sénégal. Comme nous l'avons dit d'habitude c'est votre émission, l'émission qui vous montre la vie quotidienne des Sénégalais. tey nag ñu ñëwoon Thiès daagu dem ba HLM Thiali nga soxna bu ku ne xamna ni safar mom mo yeugal senegal fim nek ni nii ñi ngi waajal magal touba soxna bu nak organiser safar bu mag ak wa promo ousmane ngom ño xamanteni ni bi ousmane ngom ak léegi war mat 25 ans ño organiser sen association ngir safar ngir waajal màggalu touba ñu lay ñuy soxna bu bu baax di la baye nga présenter wu wa sen box tv euh ma ngi nuyu wa aduna bi yepp parce que aduna bi yepp len di wa di sante serigne touba jërëjëf serigne Touba jaaram mam sharafa man soxna ci boma laaje ci 18 safar dama ci sawar ndax 18 safar motax mo moy tax gaay di gën di fàttaliku magal gi diko gën di wajjat waaw moy gëna tax nit ñi di wajjat magal gi ndax ku euh, ciofantalon magal Touba sax wala xamoko safar dina tax nga xam ko parce que semaine bi yépp depuis le premier safar ba tay koñ boo romb ñu ngi safar koñ boo romb ku xamul sax boo nee tante bi lu fi xew ñu la dañuy safar boo nee luy safar ñu leeralal la ko ba mu leer nga xam ni kon màggal gi rek la ñuy waajal 18 jour ba nag mooy 18 safar. kooku moom Ila Touba rek la bu soobee suñu borom. jërëjëf soxna Bousso ñu am à ma gauche imaam ñu bàyyi imam mu présenté wu imam ñu lay nuyu bu baax a baax di laaj lan nga xam ci safar lan moo waral safar imam. waaw soxna si ñu ngi leen di ziar. Euh, li waral safar mooy Sëriñ Tuubaa moo ko woote woon mu nekk loo xam ne du biddaa du lenn lu wér la Sëriñ Tuubaa moo liggéeyaloon yàlla ñu teg ko ay nattu ba liggéey ba jeex sunu borom xamal ko ne ko bés ni ki tey weer bi at mi saa yi ñëw weer bi saa yi ñëwatee lañ la doon defal ci teraanga dinañ koy yokk ba mu ëpp gàcceel lañ la joxoon daaw ci la sëriñ tubaa tàmbalee nag ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bu bis bii ñëwatee nag ma ci santale yàlla nag ma ci sant yàlla sant yàlla gi nag mu daal ñuy orienté na na ma sant yàlla sant yàlla ci jaamu yàlla ci ci diggante ginaar ak gëléem ñaari keef yi xeebul ginaar yéemul gëléem ku ci nekk la la yàlla may nga def ko ndax loolu lu tax loolu mooy woote bu ñu woote gan yépp ñëw foofu ñu war leen teral jox leen yi lekk loolu moo waral loolu sant googu nag dafay nekk sant goo xam ne dafay ànd ak jaamu yàlla sunu borom ndax jàng alxuraan jàng salaatu alal nabi ak xasida yi ak kuréel ak jox gan yi nga xam ne ñoo jóge fu nekk bernde ci biir loolu mu jàngalaat ne mbokku taalibe yi nekk Touba na ngeen génn seen kër yi ngir jox ko gan yi loolu lañu xam ci màggal Touba mën ko wax boo amee beneen question booy posé sama naata. à ma droite nii sëtu sëñ Cheikh Ibrahima Fall donc ñu bàyyi ko moom tam mu nuyoo sëñ bi ñu lay nuyu bu baax di la laaj yow tamit rek euh, nan nga gisee safar léegi ni ko jeunes yi di dundee nit ñi ñu ngi koy dund bu baax mais yenn saay yi dañ ciy gis yoo xamante ni du ci bokk yan conseil nga mën a jox jeunes yi ak safar bu njëkk ak bu léegi ya ban remarque nga ci am. Euh, jërëjëf soxna si euh, ñu ngi leen di ñaanal seen télévision bi. yal leen yàlla yóbbu fi ngeen bëgg bien li nga ma laaj question bi dinaa ci sawar parce que ne ko imaam Abdourahmane waxee dama lay wax ay tur sëriñ Balla Faly jeng ak sëñ Dame Abdourahmane Lo ñaari tur yooyu laa lay wax bëgg ngeen jàpp ko sëñ Dame Abdourahmane Lo ak sëñ Balla Faly jeng ñoom la sëñ Touba woo ba ñu ñëw mu ne leen sëñ Dame Abdourahmane Lo wal ma Balla Faly Dieng ba mu ñëw mu ne ko dafa am xewal go xamni ni sunu borom dama ko defal te ma bëgg mbindef yépp jariñu si ndax sunu borom daf ni ma bis bi bu del sété ndax sëriñ Touba dañ daan gis kuy dem ci làmb ja da ngay dem daan ba paré soga a sant da ngay dem daan mbeur mi ngay bëreel soga a sant sëñ Touba nak bimu génné kërëm di dem xarajtu yow ma sebti zamina asar li xidmatil muxtaari fii sahri safar génn nañ ma bisub samedi bisub gaaw génne ma samay mbokk génne ma sama dëkk di ma yóbbu ngir sànki ma nee na bis boobu nag ci lay sant sunu borom moom ndax dañ ko doon sànki nee na génne nañ ma sama dëkk Touba laa gënoon a bëgg ci àdduna génne nañ ma ko ndax sëñ Touba sunu borom da ko ni li feeg yaa ngi dëkk Touba nattu bi du ñëw da ngay génn Touba ndax Touba arachan allahu taala min kulli makruin wajhal ilahi maskani touba abat mislas miha bi jaay xayman abat touba li abdil muridin sadixin lahumo bi xidmatin aw bi xubbin aw addiyati touba lor du fi duggi wa maskanan li jalbi kulli xëyri wa maskanan li dafi kulli dayri fépp fu xéewal nekk ci àdduna dana dugg touba mais fépp fu lor nekk ak musiba sëñ touba nee na du dugg touba wa maskani sallim min al fujaari wam noon alal ahli bi ma in jaari sama dëkk bii tudd Touba yàlla fegal na ma ci kàccoor kàccoor du fi dugg na nga defal waa Touba nag ndox muy sotteeku ba fii ma lay waxal nii Touba duñ fay ndox facture ndox du fa dugg loolu sëñ Touba ñaanoon la ba yàlla nangu ko kon màggal gi sëñ bi moo digle ni ñaar bu ñu fi dendee kii fonk màggal gi kii fonkul màggal gi bis bu nekk ki fonk màggal gi di gis lu mu gën a kawee ku fonk màggal gi kon loolu laa lay tontu ci wàllu màggal gi li nga ma laajaat muy différence bi remarque bi ma def nii. mag ñi bu jëkk niñ daan màggale ak changement yi amaat ci diggante bi loolu lu am solo la par man ay changement positif laa fi gis bu jëkk mag ñi ku ci am am xar menn xar xar xaru tëbaski da koy bàyyi ba màggal gi ñëw nga rey ko ñu bëgg koo tuddee tëbaski waat ñoom noonu lañ ko fonke woon sëñ Touba ne leen bisub Seydina Ibrahima boobu bu leen ko soppi maanaam buñ bu ñu wut beneen bis di ko gam-gamle ak bisu Seydina Ibrahima man màggal laa woote te màggal bisu sant la te sant bisu bernde la moo tax Touba bisu màggal gi dangay gis xéewal yi kenn du xam nu mu demee remarque bi ma def nag mooy màggal gi dafa gën a yokk màggal gi dafa gën a am ampleur màggal gi dafa gën a am doole xéewal yi dafa gën a bari fi mu ne boo demee New York nga dem Paris am na benn sama benn waay bu nekk Belgique nee na ma man dootuma màggal seeti Touba dootuma màggal si. parce que région département bu nekk Belgique bisu màggal gi ab daayir xasaay dina fa jóge ay tubaab ñëw dégg nga maam ñu màggal bis bi ay tubaab yu xonq cor kuréel di jàng xasaayit kon man remarque bi ma def mooy màggal gi dafa gën a neex xéewal yi dafa gën a bari màggal gi dafa gën a yokk sëñ Tuubaa dafa gën a zaadat bila nihayatin kulliyati man laa yasaalu xaabila li niyati sëñ Tuubaa dañ sama lépp day yokk waaye amul fu mu yem nag waaw loolu la wax de sama lépp day yokk waaye amul fu mu yem kon soxna si loolu laa lay tontu nga xam ni sëriñ bi moom màggal yu jëkk ya ak màggal yii bokkuñ waaw léegi la xéewal yi gën a bari léegi la waruwaay yi gën a bari booy dem dégg nga maam condition yi ngay deme léegi la gën a neex donc foofu laa koy tënk rek màggal gi daal dañ koy sentir au niveau mondial donc nee na Amérique euh, Italie foo dem rek dañuy màggal Serigne Touba donc loolu lu neex la en plus loolu yoonu murit daal dara dàq ko loolu laa ci gis bu baax. donc ñu waxtaan ak ki nga xamante ni rek mooy administrateur groupe promotion wu Mali Ousmane Ngom léegi nag ñu bàyyi ko mu présenté wu. d'abord question bi ngay laaj mooy que nii ñu gis ni màggal gi bu jubsee xaalis bi day bëri économie Sénégal ak économie mondiale yëpp day yokk tamit ñu gis ni am na ci influence bu rëy ñu bëggoon xam loolu nan ngeen ko jàngatee comme yow yaay ngegu ci affaire banque ak yooyu noonu. bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu santee seen téléspectatrices yi ak seen téléspectateurs yi. waa seen box TV. Euh, pour wax ci côté économie dina que lu nga lu parce que il y a quelques années sur le plan économique nit dañ que ni euh, économie sénégalaise dafa am euh, lu subir parce que absence dans les bureaux absence dans les lieux de travail dafay tax économie sénégalaise sooxe njort boobu la ñi nga xamante ni seen gis-gis sorewul loolu la ñu amoon ci màggal wala feet bu nga xamante ni da daan am biir Sénégal jamonoy dox nag ba économie si taxaw seetlu gis que ni euh, bu màggal Touba jotee euh, sur le plan économique da ngeen di gis que ni commerce hydrocarbure ni muy développé ngeen xool ci xayma ñaata oto ñooy dugg Touba. ñaata nit lay mobiliser côté transfert d'argent ñaata milliards le Sénégal di recevoir venant de la diaspora ñu xayma ko ko ci à plusieurs centaines voire 200 milliards ah, de francs CFA yu nga xamanteni ni mi ngi ñu koy injecté ci économie sénégalaise donc bi qui wesso donc euh, ki fi nekkoon di euh, président Abdoulaye Wade xam que ni ah, jar na bésu màggalte xam naa ne du yem foofu ñu déclaré ko jour férié biñ ko déclarer jour férié Sénégal bu mësaan a perte une dizaine de milliards ci jour férié le jour euh, euh, fête religieuse légui dina am plusieurs centaines de milliards yu injecté wu ci économie sénégalaise Nous xam que donc sur le plan économique magal Touba mi ngi fouetté bu baax l'économie sénégalaise sénégalaise jaaykatu nak bi mi ngi gis bopam boppam jaaykatu fruit bi mi ngi gis bopam boppam hydrocarbure hydrocarbures yi ñu ngi ciy gis seen euh, ak kep kuy transporteur donc lolu buñ ko Nous xam que ni côté euh, euh, alimentation ceeb bi dina gëna jar baykatu waalo bi wala baykatu anambe bi dina ci gis bopam dina gis que ni stock bi nga xamanteni ni nako euh, si vous suivez un peu mon regard jëm ci côté problème wa Sonacos fan yi ñi ngi yooxu mais vente sept milliards te ci bu ñu dëgg ma leen màggalu Touba bi incha allahu rabi seen mévente sept milliards yooyu incha allahu rabi di leen ko consommer ba kenn dootu wax coow mévente au niveau de la Sonacos merci. bu ñu déggee loolu ñu xam bu baax que ni économie Sénégal waaye tamit économie mondiale tamit day yëg boppam ci màggalu Serigne Touba gi te boo leen seetloo boo leen demee Touba tamit jaaykatu ndox yi dañuy jaral jaaykatu daal kawas lépp loola jaaxal rek boo demee Touba dañ ko gis te ñëpp dañu ci gis seen bopp. bu ñu jógee foofu nag comme liñ leen ko diggee woon rek dañuy jaari suñu rubrique lu bees lu bees nag ñu leen ko indil chaque jour tey ñu indil leen lu bees ci wàllum safar ñu daal dem xooli lu bees rek daal di ñëwaat. jërëjëf borom Tuuba sa noonu tey xale yi sikar nañu wax nañ réew mi bàmbaako moom kon neex na loolu daal moom foor na ñu bëgg a waxtaane war rek ci safar ba jëm Touba. Imaam ñu lay laaj tey jeunes yi nan lañ jëlee màggalu Touba yoon bi dina metti torop ban conseil nga mën a jox jeunes yi nga xamante ni yar ak teggin dañ leen laaj ngir ñu mën a egg ci jàmm ak salaam mooy ñu yor moto mooy ñu yor ñëpp Serigne Touba yar la soxla ba Touba. moom ñu ñu ngi leen ci gërëm bu baax ci question boobu. ndax euh, sëriñ Touba dafa jàngale yar ak teggin ak euh, méthode ak disipline ci lépp nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall moo ñëw symboliser ko ci ndigal ndigal li ñu joxe nag ndigal li nga xam ne joxe nañ ko mooy kuy ñëw na nga ànd ak yar ak teggin sëriñ nee na. gis naa kuy jaay doole ñu toroxal la gis naa kuy jaay xam-xam ñu toroxal la gis naa kuy jaay alal ñu toroxal la waaye mësuma gis kuy jaay yar ak teggin ba ñu toroxal la kon taalibe ndaw danga war a am yar am teggin bañ a respecté code ñuy dawal tamit nañu respecté code ñi nga xam ne comme Thiès dafa bari ay Jakarta ku képp koo xam ne mënoo bañ a jàkk jël Jakarta nga yore casque ki ci nekk yore casque ki ñuy supporter yore casque ndax casque bi moo lay aar boo daanoo wala nga tarxiis wala problème am beneen bi mooy ñu ànd ak yar ànd ak teggin ndax dafa am loo xam ne dañ koy wuti Touba te maam Cheikh da wax naan ginnaaw buñ buñ fi jógee de na ngeen jàpp ci màggalu Serigne Touba gi ak ak ak jumaa ji kon kuy wuti dara nag war nga war nga dem jëli ko fa am fa yool waaye waroo fa dem jële fa musiba ndax na ngay comporté woo ndax boo demee pour lor wala nga dem ngir defilu bon wala safaan ba na ngeen xam ne da ngeen di dem ngir jaamu ji yàlla da ngeen di dem ngir santale sëriñ màggal gi képp ku ci nekk na jàpp ci liggéey képp ku ci nekk na ànd ak njàpp ngir leer yi nga xam ne mu ngi wàcc ci bés boobu nga mën ci root ànd ak yar ànd ak teggin waxtu bu ndaw la na bàyyi xel loolu loolu daal lay dénk taalibe yi ci yar ak teggin ak dal bañ di yéeg ci camion yi bañ di yéeg ci njëmbati bañ di yéeg ci loo xam ne mën na leen jural wala ku ciy dawal ngay dawale avec indiscipline ku ciy dawal na nga ànd ak yar respecté code Thiès Touba sorewul ren dinañ ubbi ilaa Touba bi yàlla na yàlla suturaal ñëpp mais ñu ànd ak yar ak teggin. waaw ni ngeen ko déggee imaam li mu wax leer na waaye ba léegi rek ñu nekk ci imaam imaam ñu lay wax ne suñu mbokk jigéen ñi ni ñu jëlee màggal gi doy na waar da ngay gis kuy dem màggal rek daal di jël valise def ci ay or ay lu nekk lañ ciy def. dem nañ ba bu ñu demee sax màggal du ñu xam lan mooy waree fi màggal lan mooy faratay màggal est-ce que màggal war nañ dem rek lekk naan. sañse kase war nañoo yóbbu Touba lan mooy wareefu màggal jouru màggal lan la murit bi war a mën a def ngir màggal Serigne Touba. waaw soxna si ñu ngi lay gërëm suñu jigéen ñi nag man maay seen avocat ah, màggal dafa am loo xam ne bisu sant la sant moom nu mënti newee di nga solu ba rafet ndax dangay sant yàlla sant la sëñ Tuubaa ñëw leen sant le ma war na feeñ ci col ji war na feeñ ci lépp loo tax yàlla na yàlla dolli xéewal dolli leen xéewal dolli ko seen jëkkër yi mën leen ko mën a jox ci màggal gi waaye nag bu ngeen fa ñëwee solu leen ba rafet na na yére yi rafet ngeen yore cuura cuuraay yu am solo ak parfum yi am solo waaye nag ngeen teewlu ànd ak njàpp xam ne bis boobu bisu sant la waaye bisu jaamu yàlla la itam ngeen jaamu ci yàlla bañ a wax loo xam ne mën na yàq seen màggal comme ku dem màkk rek teewlu ci def ci ay salaatu ala bi jàng ci alxuraan ku mën salaatu boo mën nga def ko ku mën tamit dem jàpp ci liggéey bi dem jàpp ci bu ñuy teral nit ñi nga teral parce que bisu liggéey la bisu root la bisu jaruñu la waaye nag sañ sañse leen ba rafet sañ sañse leen lool ba rafet lool macha allah laa xóotee lab la jërëjëf imam li nga wax rafetlu nañ ko bu baax baax ñu am rek ba tey à seigne As Ndiaye bernde seigne Saliou moo ko tuddee woon da ngay bernde ba àjjana seigne As ñu lay laaj bernde yi nga xamante ni ñu ngi koy gis biir Touba lan la ci Serigne Touba wax ci murit bi nga xamante ni mu ngi berndeel nit ñi ci bésam bu rëy boobu. Serigne Touré moo ma ko ma seigne As Ndiaye bernde moom Serigne Saliou Touré grade boobu nag avant muy dugg ci sama dënn xaw naa ndax su ma mënoon sumi sama mboxane sax dama koy sumi wan leen leer goo xam ne leer na ma lii booli bu tàng moo ma ko def dama koy yónnoo Daaru nam ba kër Sëñ Tuubaa ga keroog bi ñu may koy yenni sax damaa daanu ñu ni kii ndax oto moo ko indi walla nit fekk man maa ko yenu neloon naa juróom ñaari fan yoo xam ne mënumaa noyyi ngir Sëñ Tuubaa ndax nit balaa nga am dara ci yoon wi xaw a dee moo la koy may Sëñ Tuubaa toogul rek naan léwal ak deuxième rek toog ci taata galam rek naan ala dafa dengir ngir bi sallallahu alaihi wasallam sallam kon ñun dañu wara dengir mom. ben nak boko gisee ñu waxo nit mëna am pas pass def li te duko yor mais yor so mbusu tangal dox ci mbedd mi di jox nit ñi sax bernde la tek sa ben bant diko arroser ngir Serigne Touba rek Serigne Touba mëna la fa fek faj sa Serigne Touba moy moom comme niko imam waxe kon Touba bo fay dem dafa am no fay demé yar gi warna bari teggin gi warna bari di nga gis koo xam ne dafay toog ni damay dem tubaa sax sol benn jiin dagg ko fii ba mu daggatoo nga wàcce ko ba ci suuf ba sa ginnaaw Touba bi feeñ nga naan damay dem tubaa loolu tooñ sëñ Touba la sëñ Touba booy dem ci moom di dem màggal borom Touba gi da set wécc soo demee di jaamu yàlla boole ko berne berne nag dafa ne ci ginaar ba ci gileem ay lépp loo gis fi mu ne nii bu màggal gu jotee boo ñëwoon fii marché di bëgg jënd pomme ak orange doo ko am ngir lan sëñ Touba la sëñ Touba moo moom adduna moo moom alaxira ba mu koy ñaan yàlla kenn nekk foon naan ko amin kon nañu wacc ko bu baax te lu way man nako ko ci def ku ko ci def ngir yàlla jëmmi sëñ touba nga deug bernde rek ngir te sëriñ touba rek tax sëñ touba di defal teranga aduna ak ko won rek lu bes mom ni la leen koy indilé sa su ne rek di leen wax ni yeen ñi ñi seetaan bu leen bëggé am seen émission mën ngeen dem ci réseau câble wala ngeen dem directement sur notre chaîne YouTube Sandbox TV ngeen seetaan partager mais n'oubliez surtout pas de vous abonner ñu leen jox dig dajé très prochainement sur la Sandbox TV merci beaucoup